simile jàmm la paix de fii ci Sénégal ko tijee ne en tout cas Ousmane Tanor waaw daal di ne nag président Macky mi la ak président Idrissa Seck aha waaw waaw ca ba ñuy delloo njukkal nag Ousmane waaw ak Alaaji Malick Gakou ak Ibou Bamba Fall ak yenn ñoo xam ne kon ci société civile ba nekk de wuy si woon nañ woote ba la jaaxal sénégalais day waaw mooy Khalifa Sall ak Barthélémy Dias moomee nekkuñ fa woon Barthélémy Dias de soo leen gisee nag wax ñin nag dañ fa doon bañ a indi kon ab débordement ñu daal ñu koy jiin dëgg la ay libéraux yuy juboo ca kër socialiste ya retrouvailles libérales à la maison du parti socialiste obil le quotidien yéeni kaay nañu président Macky Sall day ma ngay capp-cappal Idrissa Seck nag di ko charmer ah waaw waaw parce que président Macky Sall day waaw nee na gis nga réew mi ne mënuñu ko séddoo déedéet boo ko rek la bokk ñun ñëpp daal a ni lée kon a ne en tout bi la du Ousmane Tanor Dieng tribune yéene kaay ne moom président Macky waaw démb nag da doon xalamal kon Idrissa Seck dëggantaan waaw waaw ba nuppi nag daal di woo opposition bi lée ah ah bi dee ci guerre bu mitti la nu ne APR waaw Saliou Keita ci tribune yéene ah nee na du dëgg loolu nekkul dëgg ku ne suñ parti bi la kon ay warkat waxoo dëgg tubaab Diop APR ci 24 heures ah ma ngay sàkku na ngir Mame Mbaye Niang ñu daal di koy yóbbu kon ci kanamu mu wax li la parce que moo di ñaa day waaw daal dina tontu nag ci plainte bi nga xam ne kon Cheikh Oumar Anne daal dina ko koy bind ni lée moo di ñaa nee na ay kasaw kasaw la gis nga yorinu président Macky Sall mi lée moo gën a yées fop yorin bi nga xam ne kon Abdoulaye Wade yoroon na ko réew mi laa la wax amul benn nitu Macky Sall boo xam ne kon jàpp nañ la dara te rafuñu dara te pourtant Abdoulaye Wade day daan na jël ay jege ñaaleem di leen tëj biir kaso bi waaye Macky Sall gëmm ay bëtam la def moo di ñaa ci tribune yéene kaay am na ñaar fukki dossier yoo xam ne kon OFNAC day daal ba léegi ni la dee Barthélémy Dias ci réew mi waaw nee gis nga ngir ñu génnee Guy Marius Sagna ci kaso bi lée xeexu ndawu catholique yi la ah way te danañu bind lettre nag jiite église bi ci àdduna bi yëpp di waa Vatican waaw waaw Barthélémy Dias ci réew mi quotidien yamu ca ndaxte nee na Guy Marius Sagna boo leen gisee ñu dugal ko ci kaso bi li mu nekk catholique la rek aha aha Barthé ne waaw Abdoulaye Xuma APR la mu bëgg waaw billaay du ko am daal mi la bëgg ñu xeex ñun ñi di ne guerre interreligion mar d'Italie la ilaha illallah dossier ci dossier ci kaw dossier dossier Petro-Tim ba waaw doyen des juges ah la ko waroon def ko pare na instruction ba de dama la coow li kay léegi nag ma nga ca taabalu Serigne Bassirou Gueye procureur de la République laa la wax waa Pôle pour une alternative citoyenne gale di waa PAK tilaas waaw nee yi nga xam ne kon nañu koy ca géejawaay googe looloo war a rak loolay dëgg dama ne la ni ki démb ah, ca Atepa Ibrahima kon ak maire Golf Sud bële di Aïda Sow dong moom moo leen dese maire ba ca boppam kon na day jël terrain boobu daal di cay Thiès eh waay Samba la ilaaha illallaah Mamadou Dieng ak aaw Sow ak Pape Meissa waa ba googee waaw nee nañu ginnaaw ba ñu jëlee nag ay parcelles yee nekkoon ca wetu terrain footballu amoo droit daal di koy caxataxatee ah lii de moo dese gars yi nag grand place eh, te la ngeen xamul waaw mooy gis nga troisième mandat wu Macky Sall bi la bàyyi leen ci xel dégg ngeen de mu Mohamed Boun Abdallah Dionne waaw nee na diggante Sénégal ak Macky Sall mi la diggante ba jeexagul de 2035 la jëm de exclusive yéene kaa ne ca forom boobee lañ profité jekkali la jóob ak bugg a seli daal di leen denc suul leen mar di taali waaw waaw xoolal ma bugg a seli problème yi nga xam ne moom lay dund yëpp taxul dee mu ñu tudd ko fa benn yoon la jóob même bu dee ña nga naan ñi ngay jéem juboo nag ñag ñag ñag patati patata kenn tudd fa démb turu la jóob laa la wax ak bugg seli te Macky Sall mi lée la def at ba mu faloo ak léegi ubil enquête ah, ne jàngoroy coronavirus yi ber nañ leen de ber nañ leen de waa organisation mondiale de la santé day waaw ña ngay dànkaafu nag Afrique gi lée mar di Italie mar di Italie la doy waar kay directeur info nee la xewe Aliou Sall day jaay na bu géejawaay waa Auchan laa ilaaha illallaah dama la Aliou Sall jaay na bu géejawaay waa Auchan un ah kaw tëf Ablaye Mbaye adjoint maire waaw nee na maire bi jaayuñu ko waa Auchan dañoo nekk ci ay lu luwe leen ko projet location la laa ilaha illallah gën naa ba noti yéene kaa gi ne xanaa xamoo leen ni Géejawaay ñeenti at a ngi nii daanaka muy tabax ab maire bu bees boo xam ne kon mënagul pare Ablaye mbay ne waaw yor na ñaari bâtiment day miti lool moo tax ñu bëgg a luwe maire bi waa Auchan eh way Samba laa ilaha illallah ay Mbaye Mbasu exclusive yéene kaa ne dama ne la scandale bu bees kon amatina ca Géejawaay gële maire ba day la ñu jaayee waa Auchan lañ ko jaay te yàlla waa Pagba waaw nee nañu mobilisation rek na askan wa jóg taxaw Babacar Mbaye Ngaraar ci direct news waaw nee na xaw ma fande waaye waxtaanee wuñ ko fii ci mairie bi délibération ci boppam amu fii conseil municipal bi waxu cax ama ah, ne Ngaraar man fekkewu ma ko man Babacar Mbaye Ngaraar ne te gis nga Aliou Sall mi waaw amul lu muy tiit Sall mooy nit koo xam ne amul lu muy ragalul dara dama ne la rek ko Macky Sall bi lay même loi bi sax Aliou Sall toog ca kawam xëyee Alioune Sall daal di jaay mbeddu géejawaay yi la bu mu leen bett Alioune Sall bu ñu xëyee mu jaay lii seen Seydina Limaamu Laay bu mu leen bett Alioune Sall bu ñu xëyee sax mu jaay police bu géejawaay bee bu mu leen bett laa wax ngaraaf ne waaye nag ñun danañu xeex te fu mu yem neex barke Rasuul laay na dem rek <laughs> waaye nag gis nga Aliou Sall ak lu mu jaay mairie ba mairie ba mairie ba mairie ba mairie ba mairie ba mairie ba wala ak lu mu ko luye luye luye luye luye luye luye waa Auchan pétrole bi moom kenn mënu koo fàtte suul gaz du ko tere xeeñ troisième mandat dañ ko fi tere te Guy Marius Sagna daa war a ci kaso bi rek boo paree ma ne la tëjal à Ousmane Tanor Dieng Macky drague l'opposition c'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien le quotidien du groupe Sud Communication écrit Idrissa Seck mon aîné Malick Gakou mon frère c'est un discours empreint de fraternité que le président de la République Macky Sall a utilisé hier dimanche 23 février lors de la cérémonie d'hommage à Ousmane Tanor Dieng qu'il qualifie d'exemple de constance et de cohérence Macky Sall appelle son opposition à dissoudre leurs contradictions dans unité autour de la grandeur de notre nation. Macky fait un clin d'œil à Idrissa titre L'As qui rapporte que la poignée de main entre les deux hommes a été l'image forte de la cérémonie d'hommage, un geste fortement applaudi par la foule, souligne L'As. Et si le deal se confirmait, se demande Wa Grand Place, qui relève aussi le clin d'œil de Macky à son aîné Idi. Macky déclare dans Tribune Idi et moi sommes témoins du respect et de la considération de souvient de Ousmane Tanordien, hommage unanime à un républicain. Le Soleil titre Le Soleil qui cite Macky Sall. Il nous a laissé une leçon de vie. Aminata Mbengue Ndiaye estime qu'il avait un sens élevé des valeurs républicaines et Idrissa Seck de conclure par Ousmane Tanor est une source d'inspiration intarissable. Tanor réunit Macky, Idi et Gakou, rapporte les échos. Vox Populi écrit que d'outre-tombe, Tanor réunit la classe politique. Classe politique qui selon Sud Quotidien par Ngouda Mboup qui clash les acteurs relativement au blocage au dialogue politique. L'invité de l'émission Objection de la radio Sud FM, de l'avis de l'enseignant-chercheur, les acteurs politiques ne parviennent pas à se hisser au-dessus de la mêlée. Selon l'invité de Sen Radio de ce dimanche, s'il y a des questions restées en suspens, c'est parce que ces questions-là, nous ne les avons pas dépassées, nous ne les avons pas résolues. Il n'a pas manqué de convoquer le caractère imprécis du dialogue en cours. Affaire Petrotim, le doyen des juges clôture l'instruction, titre Libération, qui ajoute que la balle met dans le camp du parquet qui doit retourner au magistrat instructeur le dossier accompagné d'un réquisitoire définitif. L'affaire Petrotim nous sert de transition pour parler de Aliou Sall, le maire de Guédiawaye qui vend la mairie à Auchan à un milliard de francs CFA selon Direct News et l'exclusif. L'exclusif qui parle d'un nouveau scandale à Guédiawaye. C'est un projet de location soutien. Le premier adjoint au maire, Babacar Ngaye Garaf, déclare qu'on ne soit pas surpris qu'un jour de voir Aliou Sall vendre les mosquées, les rues de Guédiawaye, le lycée Limamoulaye et même la police. Fin de citation. Kémy Seba, sitôt arrivé au Sénégal, sitôt refoulé, rapporte Tribune. Les échos font savoir, arrêté à sa descente d'avion hier pour être réexpédié le soir, Kémy Seba fait un boucan et Bruxelles Airlines refuse de l'embarquer. Il a pourtant été dûment convoqué par le juge d'appel pour un procès. Aujourd'hui, rapporte Les Échos. Vox Populi titre sur frayeur au parc de Anne. Un lion mort la main d'un homme. En sport, Stade le quotidien du sport nous parle de la Ligue 1 sénégalaise renversant contre Guédiawaye FC, Teungueth FC, champion de la phase aller. Stade revient également sur les fortunes diverses avant la c un Le Barça revigoré, le Real troué. Barça assure devant Naples et Real. doute avant City. Terminons par Sunulombe. Bombardier crache ses vérités. L'État doit confier le CNG à un autre. Bombardier soutient toujours dans Sunulombe que la lutte traverse une crise énorme. Sunulombe fait savoir que Alioune Sarr, le président du CNG, va faire face à la presse ce matin. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.